Instagram ak TikTok yéen annonceurs yi ay njëg yu xéewale mi ngi leen di xaar ngir fësal seeni produit ci digital bi Asfiyahi leeru diine ji ak tarixa bi billahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi huda wa radiallahu an cheikh tijani wa man lana ilayhi wa shilun kashif alxumami bokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen béggawaat di béggaat di dajawaat ak yéen di amaat mbégte di amaat contentement ci jàkkaarloo waat ak yéen ci seen télévision Asfiyahi incha allah bu ko defee ñu dellu siwaat ci yéen si suñu xët yu ñu jóge woon muy histoire yonent yi xisasul anbiyaay ñu tàmbali ko nag incha allahu defe naa ni benn épisode lañ ci amagum kon ñu nekk toujours ci aadama wala deux épisodes kon bu ko defee macha allah mais toujours ba léegi ñoo ngi ci aadama jeexalaguñ ko bu ko defee nag ci lañ bëgg a dellu siwaat ak yéen tey di nuyu Sénégal gépp di nuyu kilifa yëpp di nuyu sunu sëriñ sëpp di nuyu sunu sang yëpp di nuyu la xalif général ak kulli tijaan di ko ñaanal yàlla wér gu yokku jëm kaw jëm kanam incha allahu ak bépp njabootu Seydi Hadji Malick ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax ak sama sëriñ soxna Ndeye Marim si ñu ngi koy nuyu di koy ziyaar bu baax a baax njabootu Mawlaay Cheikh Alhaji Abdoul Aziz gépp gépp ñu ngi leen di ziyaar bu wér wér wér barakallaahu alhamd mais bépp taalibe cheikh buy jàng salaat al fatihi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la bëggee incha allahu di wax ne maa ngi ñëwaat rek tey ak sama waaju lakkalaati ji rek El tey moom ñuul nga de sama waaj xaw ma nag moom nu mu dikkee moom ak ay mbiram rek. ah euh, toujours ak buntu ba muy yëkkatee moom ñuul nga kukku de. mais pourtant depuis que nous avons débuté l'émission. Hmm. Euh, au fond des choses. Hmm. ci bidéew bi. waaw pourtant noir rek lay sol. loolu que moom a jaaxal. xamul lu tax. lu tax loolu. mais lan moo tax euh, pourquoi la lune tape sur l'obscurité hmm. pourquoi la lune tape sur l'obscurité pour leeral lëndëm.

oui wa jaal naa zulumaat ila nuur ah yàlla mun damaa defar ay lëndëm. après indi leer gi déchiré même boo ko jëlee ci spirituellement. Mhm. mën na nekk parce que ak lëndëm ma fi nekkoon yàlla indi yonent yi mu di ak waaye tamit. création univers bi ci lëndëm la déparé jëm ci leer. magnifique kon li wax noonu lu nekk. magnifique moom la tubaab naan. c'est la couleur de l'origine primordiale. effectivement. noir ba mu fi ba dara newul woon noir doo nga fi newoon. leer ñëw léegi nag ma bëgg nga leeral ma ci ci astronomie. leeral ma ci histoire leeral ma ci lépp. moo Elbado xam nga ne les couleurs n'existent xam nga loolu dinañ ci mës a ñëw. tegal sa baaraam foofu. <laughs> tegal sa baaraam foofu ñu dem sa baaraam foofu. ñu dem parce que loolu rek ay émission la. incha allah as nag yaa ma tooñ tey <laughs> yaa ma tooñ fekk man dama indaale sama sama ak caay-caay tey bàyyiwuma ko ci kër ga. Hmm. nga ñëw di ma tooñ fekk man ëndaale naa la benn ndëgg sërëx. Hmm. ndëgg sërëx loo xam ne nii dëgg sërëx lu doy waar. Mm-hmm. parce que dama seetaan émission a boo ans. Mm-hmm. ngay tontu benn américain de que ne. Mm-hmm. alxuraan dafa juum. fekk ñoo ngi évoqué zul Kharneini. zul d'ailleurs. Alexandre le Grand. à l'exception de Mam Seydi El Malik. ñaari ñaari question ngi ci. baal ma de loolu bokkul ci émission mais c'est important. <laughs> ñaari question ngi ci. Mhm. bi njëkk booy. Mhm. américain bi lan moo tax mu wax ne. <coughs> alxuraan dafa juum. Mhm. mu nga fàttali gars li nga ko tontu. bi ci topp mooy. maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu yan argument la indi. yu différencier. Zul Xarnayni de Alexandre le Grand. c' sama waa ji yow yow sa ndëgg sërëx bii moom compliqué na de. xam naa ne ak lu mën a xew. loolu dinañ si dellu si beneen jamono. def ci waxtaan bu gën a vaste. c'est important parce que lu extraordinaire daf ci nekk. dafa am benn erreur millionnaire. erreur boo xam ni c'est-à-dire depuis des millionnaires àddina bi yëpp di ko juum boroom xam-xam yëpp di ko juum sauf Seydi Hadji Malick c'est incroyable. ñëpp millionnaire depuis plus de 1000 ans ben erreur bo xamni ne koy def borom xam-xam ñepp koy def sauf Seydi Hadji Malick. ñëpp wax ni Alexandre le Grand erreur la Zulqarnayni c'est pas Alexandre le Grand muy ben ñaareel erreur bi dañuy wax dañ japp ni voyage doon def ci kaw doon def. erreur la voyage pas doon def du ci ñetteel bi dañ jàpp ni yax juuja ak max juuja ñu ngi ci biir suuf sii déedéet yax juuja ak max juuja nekkuñu ci biir suuf sii ñu ngi ci beneen exoplanète ci biir suuf soo sax mm-hmm. léegi nag Seydi Hadji Malick moom moo dikk wax la ni la ni c'est pas Alexandre le Grand c'est vrai Zulxarnayni mi ngi dund diggante yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Moussa mm-hmm. Alexandre le Grand mi ngi dund trois siècles avant Jésus-Christ bokkuñu époque Zulxarnayni du vrai nom mi ngi tudd Marjaban ibnu Mardaba loolu mooy turam dëggantaan wala am na wax ni Oramos la tudd waaye euh, Alexandre le Grand moom la ñu Seydi Hadji malik di xamal xam nga Seydi Hadji Malick dafa yéeme sëñ bi damay bañ lii bu jël suñu mais fokk ma tudd dund ko alaaji kuy Seydi Hadji malik man xaw ma vraiment j'arrive pas à comprendre est-ce que dëgg-dëgg ah. Ah. Euh, Seydi Hadji malik bi ñuy wax yi mi ngi dëkkoon Tiwaawan ak gaay gi ci àll bi ci néegi ñax yi moo ñuy jàngal Aristote vous vous rendez compte Aristote. Mhm. bari na tey la diplôme intellectuel vous Aristote mais Seydi Haji si di jangal Aristote. ko xamni ne yaa ci à ñaxi amo ordinateur machine Je j'arrive pas à comprendre. est-ce que vous mom que... wax ni dañu leen juum xam nga lutax duggul ci débat bo mhm. dafa nek débat bu complexe. bo xamni bu ci mhm. existence am yépp dina ko fa def diko comprendre té mom dafa am ay priorité mais quand même mu orienté ñu ci. attention ذو القرنين c'est pas Alexandre le Grand min yishrina li fahdun wa wa من بعد عشرين لليسان جعلنا فهد وسن وزن غير متنم وقد مرنا لأن شروان قل يلب في حفظ اسكندرسان أخي الغرم ومن يقول فهو qad ghalitu li sab'il mu'minina billahi zil khadami wa man yaqul ñi nga wax ñi wax ni mom moy zul xarnay ni mu sidi haaji malik ni a déet ñoñu joom nañu ndax zul xarnay ni mële ab julit la won bu yàlla gërëm néewul néewul néewul Alexandre le yéefar la parce que si taxaa imaam di wax ni kenn yéefar nga bu la gisoon nga doon nga ni ko yéefar laa di def yéefar sax moom du la ko tuddee waaye nag sañ na ni kii jullit mu ni kii moom jullit la moo tax mu ne kooku nag moom jullit la te moom moomu wanna zalika tilmizu aristotalis yi mu ne moom moomu élève la woon ci Aristote fan la Seydi Hadji Malick ñëw di ñu jàngal Aristote koo xam ne yaa un nga dëkkoon ci ñax ci Tiwaawan ak gaaya mais comment est-ce possible man de xawma ba xam <laughs> xam nañu dëgg-dëgg kan mooy Seydi Hadji Malick wala nit la wala lu mu doon waaye daal euh, lu extraordinaire la loolu incha allah dinañ ci dellu si parce que boo gisee loolu mm-hmm. tubaab boobu dafa taxaw ni ko alxuraan dafa juum mm-hmm. parce que daf ni ko maghriba shams existé wu mm-hmm. effectivement logiquement existé wu ni ko foo xam ne foofu la jant bi di so ça n'existe pas gis naa ci benn kilifa ci euh, télé ci réseaux sociaux yi mu wax ci ndeysaan juum ci ma bind sauf erreur Zurxane yi c'est pas Alexandre le Grand. Mhm. am ñu bëri nag songu ndeysaan xam comprendre ñu mhm. ma ne ko mais gis nga euh, Maghriba Chamsi métaphore la existé wul ci kaw suuf si foo xam que fii la jant bi di so ça n'existe pas foo xam ne boo fa demee dañ naan la fii la jant bi di so mhm. ça n'existe pas fan mooy Maghriba Chamsi le Maghreb Maroc pour les arabes pour les pour ñu dëkk Arabes Saoudite le Maghreb mooy Maghriba Chamsi mooy Maroc

Mm. mu dox ba fe fa jant ba di so mu fekk deg bu tang bo xamni ci la jant bi dugg kon donc mënatoo def ay métaphore parce que dafa tek un endroit clair waa ni ko sëñ bi je suis désolé américain bi mm-hmm. ni ko je suis désolé mais le soleil ne se couche pas dans une source boueuse amul deg bu tang bo xamni ci la jant bi dugg li ñuy tuddee jant bi dafa so jant bi sax sowul fen jant bi il fait 1 million de fois la terre waa ji mënu ko répondre daf ni rek euh, bon Zulqarnayn dafa gis ci jant bi sax il a l'impression. impression mu ni non tu peux pas me faire des métaphores parce que il a l'impression nga wax te alcorane dafa préciser dafa wax lu wér mu fekk ben déeg bu tang bo xamni ne fa la jant bi di so léegi nak lolu alcorane di wax nu mu amul argument quoi. te lolu alcorane di wax. ay eh, alaaji mooy xàqul eh, yaqin alaaji bu la laajoon booba américain bi bu la laajoon. <laughs> inshallah lolu loolu ci ñew ben bu spécial. important Zulqarnayn foog ñu andi ko alaaji. Mm-hmm. parce que c'est une histoire qui me marque. bëgg naa ci indi ay leeral yu baree bari ak yow haj tey suñu émission ñoo ngi koy dooree ci maam Adama lañuy lañuy ci la ñuy ñëwaat incha dafa am benn équation boo xam ne man personnellement daf maa jaaxal xam naa ni jaaxal na ku dul man yàlla moom moo wax ci alxuraan ne bu ñu sujootal kenn ku dul moom du moo ko wax waaw loolu moom rek moom moo yooyoo ñu sujootal ma wallaay ndeysaan waaw mais lan moo tax nag moom mu dellu siwaat moom tamit nañu sujootal leen Adama lu mu ci jublu waaw macha allah el badu euh, lu complexe la parce que dafay mel ni contradiction ci koo dégg boo ko comprendre dafay mel ni contradiction la ni bu leen su jootal kenn ni nit ñi jant ni garab ni xeer ba pare ni su jootal leen man rek yàlla ba pare dellu siwaat créé benn créature benn mbindeef ni malaaka yi su jootal leen ko xam nga bi ci jëkk el badu mooy d'abord ki la bind yow yàlla yàlla dafa liggéey benn œuvre ba mu pare mhm. ni su jootal leen ko su ñu objet bi mais yàlla mi ko bind moom la ñu su jootal parce que ci ndigalam nga ko defee est que xam nga kiy bëgg yoo su bu buñ laa su jootal ma ki bind la bind la bind kanaara gi bind picc mi buñ laa su jootalal kanaara gi su jootaloo kanaara gi sax moom nga si jootal xam nga magum jëmm di nitu yàlla di wàlliwu di boroom xam-xam di ku mbooloo topp mu dem ba màkk futtee ko de sa benn sagar lëmasoo ko di daw di wër kaaba gi xam nga ne bu wërul kaaba gi ko sant wër kaaba gi lay wër waaye wërul kaaba gi yàlla xam na ko kon bu ki la sant ni la su jootal lii moom nga su jootal su joot boobu xamuñu mel mhm. d'abord du su joot au vrai sens comme ni ñu koy waxee mhm. su joot bi nga xam ne moom la malaaka yi su jootal iblis mhm. rukkoo la du su bi nga xam ni Euh, juróom ñaari cër wala juróom ñetti cër moo koy def mhm. mooy sa ñaari cati baaraam sa ñaari oom sa ñaari loxo sa bakkan ak sa jë muy juróom ñetti cër moom ngay dëpp ci suuf si ñu soogoon ni yow sujjóot nga mhm. benn bu ci manqué sujjóot bi baaxu mhm. même bakkan bi sax bu dellu suwul bu dee ñetti yoon la te nga def ko ci tayef da nga koy da nga koy koy dabb donc sujjóot bi juróom ñetti cër yooyu ñoo koy def mais ñoo lee rukkoo la dañuy incliné wu inclination boobu mooy lan mooy nga ni chapeau yàlla créé na benn création bu extraordinaire nga ñëw nga ni oh vraiment chapeau nit dina ñëw def benn geste nga ñëw taxaw summi sa mbaxane ni chapeau c'est-à-dire ne mooy da nga li mu defar pour ci moom nga yëkkati màggal ko moom du li mu defar moom ngay tagg mais moom nga tagg ci li mu defar tout à fait moom nga ci li mu defar donc yàlla nga sujjootal ci aadama mais pas aadama nga sujjootal parce que gëmoo aadama xamuloo de jàngul la dara xamoo ci moom lenn hmm. mais yàlla muy la bind bind ko moom la eh sujjootalal kanaara bu la ko waxoon ci kanaara sax boo sujjootal kanaara gi yàlla moom nga sujjootal hmm. donc moo tax foofu yàlla bi mu bindee nit ba pare dafa defar merveille defar lu rafet innaa xalaqnaakum summa sawarnaakum summa xulnaa lil malaaykatu sujudoo li aadama fa sujudoo ilaa iblisa lam yakun mina saajidin yàlla laaj ko moom iblis ni ko maamaa naaka ala tasjuda is amartu ko yow iblis ana lan moo dox sa digganteeg nga sujjóot bi ma la ko sante iblis tontu ko ni ko annaa xayrun minhum ndax man xalaqtini min naar wa xalaqtuhu min tiin man maa ko gën ndax man yaa ngi ma bind ci safara moom nga bind ko ci bat man mako gën ndax man wolof la mom muy nangam man mako gën ndax man arab la mom muy nit ku ñuul man mako gën parce que man nangam la bok moom fangam la bok donc lolu mo dal iblis man mako gën parce que man safara la mom bande tout simplement yal na kon nak fa bit minha. fa ma yakun la ka an kon waccal xam nga fa bit ak faxaruj mhm. wàccal génnal wàcc boobu mooy fi mu togon ci trône nek chef mom iblis mhm. yàlla ni ko wàccal trône bi nekkatoo fi dara léegi Iblis continue xuloo dégradé naa la waaw dégradé naa la donc boobu wàcc nga nekkatoo général dégradé ñu ne eh diw dañ ko wàccee xam nga di nga dégg ñu ko wàccee mooy nekkatul nekkul ni siège bu muy wàcc wala escalier yu muy wàcc dégradé nañ la dégradé naa la wàccal summi nañ la summi la fa mu doon taxaw it place ba mu doon taxaw ñu ne ko génnal place boobu faxruj mooy génnal place sa xam am na position bu mu doon taxawee en tan que chef yàlla ni ko faxruj dafa am koy génn Iblis Iblis mel ni ku bëgg piéger yàlla ni ko damaa bëgg nga may ma ba keroog yow ma la bul ma négociation waaw. ni ko ni ko ni ko bu ma rey rek la lay demander ak limalay liggéey lépp limalay jaamu lépp bul ma ba yomal xiyam yàlla ni ko may la ko iblis ni ko waaw kay légui nak yekku naa la fa bima ma axwayte nii la aquddana lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim walan tajidu aksaruhum shakirina ni ko waaw kay comme yaa ma yaa ma réeral iblis yàlla la wax ni accusé ni ko yaa ma sànq mhm. na sànq nga ma fa bi maa xawayta nii ni ko yow yaa ma sànq ni ko nag danaa sàkk yoonu njub ba kenn du fa egsi danaa leen dikkee kanam danaa leen dikkee ndeyjoor danaa leen dikkee ginnaaw dinaa leen dikkee càmmooñ dinaa feranku laay yoon wi jëm si yow ba kenn du egg laaji tëkkonte boobu moom moo ñu sànq. bu doy waar. tëkkonte boobu moom moo ñu sànq lànk gi iblis lank wallaahi moom moo ñu tëkkantee. mu hmm. mu yàlla wax ko mu lank yàlla tëkku ko. Hmm. moom it mu wax yàlla li mu wax loolu moom moo ñu indil problème yu nekk. ba lu ñu lu lu lu naqari yàlla iblis ba wax ñu ci. xam nga iblis xam na suñu fragilité. Hmm. xam nga iblis dafa fekke sa maam Adama bi ñu koy defar. fekke na yonent yépp seen woote xam na li tax ñu gëm leen xam na li tax ñu weddi leen. xamna na li ñu gëm lu tax ñu gëm xamna ñi ñu weddi li tax ñu weddi mm-hmm. xamna li tax xaré yi mësa am yépp xamna liko taal xamna liko fay mm-hmm. fekké na sa juddu fekké sa ndaw fekké sa màggat mm-hmm. sa junniy maam fekke nag ndax fekké fekke dëgëram fekké ak màggatam doom ju ci juddoo mu fekké ak ndawam fekké ak dëgëram <laughs> fekké ak màggatam ka ci top mu fekké ak ndawon il était témoin oculaire de toute l'histoire histoire yépp il était là il était témoin oculaire xam le pourquoi xam le comment xam la moo tax ñi rent xam li nga bëgg xam li nga ragal xam say faiblesse xam say complex xam sa woyof bakkan mhm. moo tax dafay xam fi mu lay jaar xam nga Adama maa ngi lay wax keroog ni la euh, sama laaj boobu ma laaj te gars yi dégguma ñu tontuma ma ci mhm. ma leen aadama dafa bëgg jabaram moo tax wala daf ko yërëm moo tax wala dafa faible moo tax maa ngi xaar ba léegi ñu tontu ma ci ban la ci ban moo ci daal Adama ci ñett yooyu ba tax na biko iblis ne lekkal garab gi mum adama mu lànk jabaram niko ko lekkal garab gi mu lek mu lek ko c'est c'est loolu mooy lépp iblis dik na niko adama aadama lekkal aadama ni yow seytaane nga adama iblis dem ci soxnam fexe ba soxna ci lek soxna ci dik niko adama aadama lekkal aadama lekk aadama lan motax tax mu def loolu dafa faible motax mais alaaji loolu wala dafa bëgg jabaram motax tax alaaji ñong ñoo ngi koy alaaji loolu ñoo koy dundu bien sur lek lek soxna ci def loolu yo xamné goudi xam nga ni du dëgg. dëgg du yoon mais danga koy def. xam nga le problème mooy que aadama amul histoire bu muy jàngate dara. ah keroog diw de moom defee lii lii la ko yàlla teg keroog Serigne Seydi Hadji Malick day ku baax la woon naa baax. ah Serigne diw day ku daan dimbalee la naa dimbalee moom amul fu muy jàngatee amul benn histoire. bu muy jàngatee amul benn référence. voilà mhm. mais yow da am histoire booy jàngate. tout te aussi aadama bul fàtte ni yàlla ci la ko bàyyiloo xel. Mhm. moytul iblis sa noonu la. Mhm. waaye néew ko sa soxna. néew ko moytul sa bakkan est-ce que dégg nga ñaar yooyu. j'ai compris yàlla néewul aadama moytul sa bakkan de mën na laa sànq néewul aadama moytul sa jabar de mën na laa dugal ci lu dul dëgg kon donc aadama facilement mën na def erreur foofu. ak la ca laxasu lépp. Mm-hmm. moo tax macha allah moom aadama mbiram noonu la demee ci wàll woowu. magnifique. barakallahu magnifique bu ñu dellu waasee bu ñu dellu suwaatee ci ginnaaw émission bi passé dimanche keroog dimanche. Mm-hmm. wax nga ci euh, création aadama. Mm-hmm. nga ci lu bare bari.

moom aadama parce que fofu c'est la création asexuée mhm. mooy création bi nga xamni ni juddoowul ci hmm yalla bind ko xamni ni bind ko ci ñaar ñu sëy donc mhm. c'est une création asexuée loolu yàgg na dem mhm. ndax mi ngi amoon ci végétaux yi amone ci gàncax gi amna ci bactéries yi amna ci cellules yi une reproduction asexuée asexuée ouais. ce n'est pas une reproduction boo xam ne dafa jógee ci sëy maanaam am élément yu daje góor ak daje pour madame donc. am dañ ko dindi division cellulaire la c'est-à-dire aadama ci boppam moo divisé wu xawaa isotope bu aadama la moo Hawa, xawaa bi mu dañee ci aadama aadama dafa dalatul comme ni mu dalee woon aadama il était plus stable bi nga xam ne xawaa ñëwagul dañagul ci moom mais bi Hawa dañee ci moom il devient maintenant instable xam nga isotope Ben atome bu stable mhm. boo ci créé ben isotope maanaam boo ko cassé créé benn isotope radioactif isotope boobu lay maintenant l'atome devient instable dootul dal parce que dafa am lu manque ci moom am na lu jóge ci moom li taxoon mu am équilibre équilibre boobu dafa disparaître centre de centre de gravité moo yëngu exactement jigéen it dafay sentir ni boobu dañ ko génnee ci néegam moo tax jigéen am sentiment wu bu amul borom kër mel ni ku exposé wu ci mbedd mi mhm. day sentir benn vide day sentir ni moom amul protection amul kaaraange dafay errer dans l'air góor tamit bu amul soxna dafay sentir dafa am lu ko manqué intérieur bien sûr yëg ne am na lu manqué ci mom amna dal ben soulagement ben satisfaction ben lu ko mën combler. Hmm. lo xamni ne mënul xam lan la exactement. parce que ñaar ñooñu ben la woon yalla séparé ko. Hmm. donc non la ñu génnee mu génnee ci wet gi firiwul directement yaxu far gi ñu rocc ko comme ni koy waxé noonu mais dafa duplier wu dafa mel lu diviser wu ben division cellulaire xawa xawaa ko ci jëmmam di génn di génn ba génn taxaw. kon aw duplication Adama la quoi. effectivement. Momo mo taxone ku ku momo mo taxone si ci langue eh, yenn langue bo demé hawa da fay firi ku dal ku am sakina ku am sakina ci langue swahili loolu lay firi hawa moy ku am possible ku am sakina motax mo don def ci adama sakina moy def ci ci quiétude c'est magnifique c'est magnifique dina ñew ci bir waxtan bi mhm. euh, légui nak euh, kon comprendre nga li tax awa meunal dara adama mais kérok euh, ci waxtan wi wàccoon nañu ba ñogi waron waroon toll ci fofu nga genn muy ay euh, reproduction la reproduction ak euh, ñom sen, mais dama bëggoon ñu yéegaat ben escalier mhm. ndax c'est important dina fën ci biir waxtan wi ñom ñaar mhm. Adama ak Awa biir bi ñu def biir aljana mhm. c'est important dina fën ci biir waxtan wi waaw macha allah Adama ak Awa bo démé ci diga gis ci tafsir Ibn Kasir indi na ko ci yenn xadis si nga xam ne wàcc nañ ci ban diir la ñu def biir aljana ñoom ñaar avant iblis di leen génnee mhm. dañuy une heure de temps lañ fa def mhm. waaye nag une de temps wu mhm. de temps wu boobu ñeen ñi dañuy aadama ma nga nekk aljana diggante julli tàkkusaan ak julli timis maanaam waxtu woowu la jël ñenn ñi déedéet ma nga fa def une de temps donc benn la rek une de temps boobu nag am na ci wuute ci nombre d'années parce que ñii dañuy cent soixante ans la am ñu ni cent trente la

ci benn montagne bu ñuy wax Sinindib ca tàkkusaan ci jouru hmm. tamxarit jouru tamxarit la ko fa wàccee bu tolloog benn vendredi ca tàkkusaan ci benn montagne bu ñuy wax Sinindib ca Inde super wàccee Hawa Jidda wàccee jaan Iblis Bagdad yóbbu jaan Damas yóbbu kële Irak kon moom xanaa daf leen a daf daf leen a rek saa waay mel ni tasaare ñu tasaaroo parce que dañoo war a tumuraanke bu leen regroupé ñoom ñëpp dañu war a tumuraanke bi ñu génnee nag ñu ngi erré aadama noonu la génnee pour la première fois. Adama nag ah lu pom ba neex-neex boo yëgoon bàyyi ko fa <laughs> coono bi mu ci daj. ah xam nga pom bi du neexitu pom bi rek la. Mhm. pom bi li ci Iblis laxas moo garaaw. parce que Iblis daf ni la boo ko lekkee. Mhm. da ngay nekk yàlla dootoo fi génn. Mhm. boo ko lekkul da ngay génn donc dafam am risque. dafa risque. gis nga li ci bëgg a falu. waaw. buma ko lekul xam nga risque moy bu fekkone dañ la bu ngeen ko lekke da ngeen di nek ay yalla bu ngeen ko lekkul nak du ngeen nek dara important kon kooku man naa bu jël baña jël risque lekk ko mais boko lekul da nga fiy génn dafa am risque léegi mm-hmm. ah wa suma ko lekul ñu génnee ma fi nag est-ce que gis nga bokut ak bu ngeen ko lekke da ngeen fi sax ba faaw da ngeen di nek ay yalla sax nak mm-hmm. waye bu ngeen ko lekul mom fi ngeen di nek di taxawal rek mm-hmm. kon lolu amul risque trop amul risque voilà donc lo loo bëgg la rek te mënoo ko am garaam mën nga ko muñ waye daf iblis daf la tégal risque ni la boko lekul da ngeen di génn donc là c'est dangereux ça devient dangereux. quest ce que tu vas faire. parce que da ngay jël risque bañ ko lekk ñu génne ça pousse à réflexion. voilà cest à dire pour comprendre Adama. ni ko Iblis tegee problème boobu. noonu la leen yàlla wàccee ca Inde. Adama wàcc Inde ca Sinindib ca tàkkusaan taxaw ca kaw montagne yu Sinindib ba moom Adama di joy, di joy, di joy. di jooy jooy yu metti ba rangoon ñi day rogalaat ci xur wi di wàcc. tegu ci kaw suuf. ah. sawaay oustaz maa ngi nuyu nag soxla si kat. xanaa gisoo ma tey ni ma mel. ah gis naa ko. ah moo gën moo génn fii. moo génn fii. c'est magnifique. comme mi ngi fi fan yi macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax ñoo ngi koy dalal jàmm. Fall Dieng Senghor di nuyu waa kër gi yëpp également sama yaay yu baax dafa dëkk waaye caaro yi aussi également ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di leen ziar barakallahu di leen ñoom ñëpp di wax ne rek foog ñu tudd ko. bien sûr c'est important ndax mooy sama xawaa. c'est important xam nga xawaa mooy ki lay dalal.

ndax ñamu aljana yi mu tam ngelaw li fi nek munu ko noy te bobu oxygène pur mo fi nek te adama mom munu ko noy aduna bi dafa xassaw ci mom dafa xéñ ndax aljana bi mu jógee température yi melni rek kuñ jappol rek tecc ci kasso fi mo ngoog température yi fi nek dafa metti mu tok rabbi diko daw fu mu taxaw rabbi ni daw daw len adama ngok togn katu boromam loolu la rabbi daw len comme ni ñi ciokoto gaay motax ba léegi rab fu mu gis nit rek daw bo gisee même gaay gaynde bu gisee nit da koy daw bu ko attaqué rek loolu ay action la nu mu demee la. bien sûr mais rab yëpp dañuy daw nit. pourquoi parce que ba booba lañ ko daw nit daw leen aadama goog tooñkatu boromam. aadama loolu metti ko benn picc moo ñëw taxaw ci wetam fu mu taxaw rek ah picc mi ñëw taxaw ci wetam yàlla ni picc mi yow lan moo tax ñëpp di daw aadama nga taxaw fi mu ni ko damay bañ mu niroo ki yow ci dong yow rek yaay càppaacuuli yaay kenn ku ne dong amul koy dendal amul koy wujjeel amul koy wurenteel moo tax ma taxaw ci wetam pour bañ mu niroo yow ci loolu picc mi yàlla ni yow picc moom yow araamal naa ci yow paaka yow kenn du la rek aadama nekk saxoo di jooy jibril nag day ñëw di ko wéttali si ndeysaan parce que jibril daf ko yërëm ndeysaan jibril bu ñëwee day ñëw toog ci wetam aadama dikk nag xiif mi ngi ko jàpp waaye xamul xiif moom aadama mm-hmm. mu dikk ni jibril man daal tey damaa jaaxle sama biir bi daal dafa mel ni deru biir bi dafa tafu ci ginnaaw gi jibril ni ko ah dangaa xiif aadama ni ko lan mooy xiif parce que aljana boo fa nekkee doo xiif mm-hmm. di nga am envie lek di lek bu sour mais du mën ngaa lakk nag lekk koom jeex nak do xif do sa ko la ru xif mu ni ah jibril ni xaaral ma ñew dem ni yalla adama dafa xif yalla ni ko ah fofu mu nek di ko bëgg lek da ngay bay jox ko jiw blé motax gis nga mburu barke bi mu am mhm. mburu daqul dara gënul neex len mais ñepp mburu lañu ñuy dëkk àddina bi yëpp parce que adama mburu la njëkk lek ci ko suuf yalla jox ko blé ni ko boo demee nee ko ko ji aadama ñëw ji ko ci tefesu dex gi blé bi màgg mu góob ko ni jibril ndax mën naa kaa lekk jibril ni ko déedéet wowal ko mu wowal ko ba mu wow mu ni ko bojj ko mu bojj ko soq ko wal ko mu wal ko mu ni ko tooyal ko mu tooyal ko def ko mbur pat mu ni ko lakk ko mu lakk ko mu nekk mburu aadama lekk ca bëgg koll bi fengal daal di suur ni jibril man de damaa mar jibril ni ko xaaral dem ni yàlla aadama dafa mar naan mu ni ko ah na gas teen aadama di gas di gas ba mu tolloog óomam mu jot ndox xam nga boobu mi ngi mesurer trente mètres aadama mhm. bi muy génn aljana trente mètres la doon mesurer ci njoolaay am wax lu ko ëpp nag ñu mhm. après yàlla na ko gàttal mais yooyu wéru mhm. trente mètres doon mesurer moom la mës a taay taille boobu la am mooy taille bi nit ñi di am bu ñu nekkee aljana mooy juróom benn fukki xasab la xasab demi mètre la moo tax trente mètres la donc bu gasee ba mu tolloog óomam dana gis ndox ndox mi génn mun naan ba koll bi fees daal di toog léegi nag ñaar yi mu lekk nekk ci biir bi guuj guuj ak moom rek jibril dikk mu ne jibril man daal li ma lekk mi ngi sama biir bi rekk sonal ma ak li ma naan jibril ni ko ah d'accord xaaral ma ñëw daal di dem ni yàlla aadama amul fu muy génnee ñam bu rees ak ndox bu rees si nitu aljana ko am ci yàlla aadama bi ñu ko bindee mhm. amul bërëb yooyu mhm. bërëb yi di génnee ñam bu rees mhm. ak ndox bu rees parce que aljana amu fa aljana lekk yi ngay lekk aljana amul déchet amul déchet xam nga li ngay génnee nit bu lekkee par li muy génnee déchet la ci aljana amul déchet ñamu aljana lépp ay pores yi lay génnee nekk ay ñaq nekk ay parfum boo lekkee aadama ni ko yàlla ni ko demal daal di koy utal nag fi muy génnee ñam bu rees ak ndox bu rees aadama dem génne loolu soo ko dikk toog ak jibril ni ko mën daal jibril lii moom avant ma koy lekk coono bi ma ci daj te bi ma ko lekkee ba pare it coono la wallaahi avant ma koy lekk coono laa ci daj pour am ko te bi ma ko lekkee ba noppi coono rek dama juralaat wallaay wallaay jibril ni ko nag sa sët yi ñëw bala ñoo lekkati danañ daj coono boobu te buñ ci lekkee ba pare ñu def lu dul génneewaat ko rek xam nga adama mooñ tooñ ndeysaan adama na ñeent fukki ci loolu ci yërëm leen mu nekk biir Inde moom adama di dund waaye nag mu sentir ak wéet bis bu nekk bu xëyee mi ngi xool nan lay def ba yàlla jéggal ko mhm. adama mi ngi julli adama mi ngi woor aadama bi def ay pexe ba yàlla ni ko aadama jégal naa la mu xëy benn bis yàlla ni ko aadama demal nga aji màkka aj màkka aj màkka cëpp yàlla ni ko demal nga aji màkka ca kaaba bi mu ñëwee mu ne ko fuy màkka yàlla boole ko benn malaayika ñu lante ñoom ñaar mu yóbbu ko màkk benn année boobu la ko yóbbu chaque année aadama day demal boppam aji ji màkk ñibbisiwaat Inde chaque année day jóge ind dem màkk aj ñibbisiwaat première année bobu la dem bim ba mi fa fekk ben kaaba or ga fi fi ay millions d'années ce kaaba j'ai failli te demander xana du kaaba gi nga xamné ibrahim moko or massif or magnifique maintenant c'est clair bu fa nekkoon ba légui mhm. defe naa ne ngayeen yeeg ñangeen yi bu ñu ku sa nga du <laughs> c'est sûr hein. waaye heureusement ba ko fa yàlla jëlee mhm kaaba googu moo bi suuf si di yàlla di génnee suuf si la ko génnee ci bi suuf si kaaba gi samp foofu malaayika yi di ko tawaaf pendant des milliards d'années pendant des millions d'années mala kaaba or googu moo fa nekk malaayika yi di ko tawaaf di fa sàbbaal yàlla moo kaaba gi ñoo tolloo nag teg teg ni ñu tolloowee mooy boobu ak gënoonu gudd ci ay fondement fi mu saxoon bi ko yàlla sempee la kii parce que ci tuufaanu Nuux la yàlla soog a sempi kaaba or googu yëkkati ko troisième asamaan ñii ni mu ngi juróom-ñaareelu asamaan parce que daf ni noox demal nga jël ajaratu laswat nga dénk ko jabalu abi xubaysin mooy ajaratu laswat boobu xeer woowu mu dem jël ko dénk ko montagne bi mu ne ko demal nga sulli bàmmeelu sa maam aadama nga yàpp ko ci gaal gi noox dem sulli aadama ñëw yàpp ko ci gaal gi loolu dinañ ci ñëw bu ñu egsee ci noox incha allah waaye fii bi aadama di ñëw mi ngi fa fekk kaaba or koogu waaye bi aadama di ñëw keroog màkk bi mu ñëw ba agsi arafat fa la séen de loin lu mel ni nit mu koy séen naan waaw lële de dafa mel ni nit la di dox di ñëw di dajeeg loola loola di ñëw mu koy xool naan waaw lee comme nit de di ko xool ba saa mu gis ba saa mu confirmer ni lii kay nit la comme man la mel te fii kenn nekku fukk dul moom muy dox ba saa mu séen ko ba saa mu ni waaw kii de dafa mel ni xawaa la sax naka la ko séen xoolaat bu baax gis ni xawaa la kay laa ilaha illallah seen xawaa xawaa tamit xool ko xàmmee ko ñu daje ñoom ñaar ci arafaat moo tax borom ba tudd Arafa. mooy mm. xàmmante ba ndax foofu lañ xàmmante. c'est magnifique. ñu daw ñoom ñaar daje ndeysaan. Mm-hmm. Adama ni ko yow man wër naa la ba sonn de fu nekk seet naa la fa fan nga nekkoon xawaa ni ko ah man de maa ngi woon fii rek. xawaa nag mi ngi nekkoon ci tefes gi. Mm-hmm. moom bu xiifee day dugg ci biir géej gi jàpp benn jën teg ko ci xeer yi ba mu xaw woo rek mu lekk ko continuer di wër Adama loolu rek la doon def. Adama nag fitna bu ne mi ngi ci mais xawaa moo ci wetu géej gi la nekkoon sonnul. nga dal bi nga doon wax ci jigéen ak. wallaay ndeysaan moom mi nga am sakkinam. benn objectif la mooy bu xëyee dina wër aadama. moo tax bi ko aadama nii naa la ko parce que aadama de temps en temps la daan wër xawa. Mhm. nekkuloon constamment ci la dëkk. Mhm. ni ko wër naa la bay bëgg a dee. xawaa ni ko ah mu dosé ko dosé bi jigéen di dosé góor rek. waaw ni ko man maa ngi woon fii de amuma benn problème. c'est magnifique. ndeysaan ñu mhm. ànd ñoom ñaar ci noonu ñibbi si Inde. bi ñibbisee Inde nag ñoom ñaar ñëw nag toog ci lañ installé wu nag commencé nag di dund seen dund di mener seen vie bu nga xamante ni si moo leen indi fi mu leen indi tey après. c'est magnifique Alaaji kontaan naa vraiment kontaan nañu léegi tase nañu Arafat gisante nañu. xamante nañu nammantikoo nañu Adama jël Awa yóbbu ko Inde mu sëy dafa mel ni Alaaji. Mhm. Euh, hasard amul. ndeke ne kon jigéen sëy bi mu sei, sëy mhm. ndeke ne ya la woon la xam nga bu fekkoon ni góor mooy sëy mhm. kon du a conserver wu maanaam c'est magnifique disparaître parce que faut que ku góor ñibbi kër indi foofu soxnaam doomam yooya sant faal ñu xam famille ñoo c'est magnifique parce que doom mhm. bon yaakaar naa loolu ñëpp d'accord nañ ci. dom góor mo la nane ya ko sa dom la jige manam xëy sax domaine bu compliqué la. waye boo ñu doon sédélé dañ naan ah 80% euh, yi góoru ko moom. moo tax santu baayam lay jël du jël santu yaayam. yaayam ci bopam sax santu bayam lay jël. kon dom góor góoroo ko moom bàyyama ko moom. waaye nag bu boba lol mo lay permettre kon nga mëna conserver famille. waye bu fekkee ni ko góor ko mo fa dem njaboot gam fay am mën nañu conserver santu faalo mais dañuy réer ci biir famille yu. dëkku ndaw sa ndaw sa jabar jaa nga dëkk yaari daqaar waa jaa nga dëkk kër Modou Fall <laughs> yaari daqaar kañ waaw léegi bu waa ji jógee kër Modou Fall dem yaari daqaar uh-huh. am fa ay doom mm-hmm. doom yooyu ay waa yaari daqaar la ñuy doon waaw dëgg la wala waa dëgg la de wala waa ngiig wala waa ndënguru dëgg la alaaji voilà léegi nag bu fekkee dañoo dikk Paalin mm-hmm. doom yooyu dañuy nekk waa Paalin wallaahi moo tax mm-hmm. euh, yàlla préféré comme ni nga ko waxee noonu jigéen dem sëy c'est magnifique c'est magnifique. Mmh. Adam et Ève fondèrent donc euh, leur foyer. Mmh. accouplement bi ñu doon wax daal keroog ne moom la ñuy doore tey. Mm-hmm. donc commencé ñuy sëy. Mm-hmm. Adama ak Awa couple boobu ñaata doom la ñu am. macha euh, Elbadu Adama Hawa doom yi am am na polémique bu bare bu ci nekk. léegi mm-hmm. ñu naan am ay junniy doom. déedéet Adama ak Xawa li ñu am ci doom directement. Hmm. barewul waaye seeni doom ak seen i sët ak seeni i sëtaat dañu leen faa fekk bu ko defee dañu naan njabootuk Adama doomi Adama yi fekk ne du ñu ay doomam direct ay sëtam la ay doomi doomam yu mel noonu lañ cay boole waaye Xawa 79 doom dong la. Hmm. ci 950 ans. Hmm. xam nga 950 ans la ñu sax ñoom ñaar Inde lañ fa dëkk. xawaa ñeent fukki yoon la ëmb. wala ñen fukk yoon ak ñett la ëmb ñett yu jëkk yi doom yu judd yëpp dañuy gaañ dafa bon le woon xana xawaa dafa am doom mu dee adama jaaxle iblis fi mu njëkkee intervenir aat ci adama pour sànkat ko foofu la xawaa dañoo dox tuuti xawaa ëmb am doom doom ju góor doom ju judd dee adama xawa a jaxasoo xol ñu doxat ñu demaat tuuti mu amaat doom dom yu juddu ñew dé xam nga yoyu boko gissé dafa am luko ko waral. Mhm. dafa am awal waral dañ ci moom ndax dafa am garab gu mu lekkoon te waru ko lekk. est pour dom yoyu lap pour dom yi muy am lap fokk mu am ñu raxas ko. tu as tellement raison Alaaji. vous comprenez fokk ñu dindi ci moom sobe bobu nga xamné ne na. yalla du yak ci ndab lu. déedéet voilà motax ñoyu daf leen di hmm bi mu amaatee nag doom deuxième fois bi iblis dikk ni ko soo amatee doom dafa dikk ni ko aadama xoolal technique bi iblis def dafa dikk ni aadama ah man de fi ñu doon la jéggul ndax yëg naa ni li la dal ni yépp wax dëgg yàlla man la te ki ñaan dong moo ma ko teg mm-hmm. xam nga nit bu la waxee loolu da nga koy gëm mm-hmm. ni ko nag vraiment maa ngi jéggulu am naa lu ma naqari lool parce que maa ngi nii nekk ci coono ak la ma amoon lépp yow nga yaa ngi nii nekk ci coono te dara jaru ko te mm-hmm. rek la woon kon maa ngi lay jégal bu baax vraiment di la ñaan nga jégal ma pour nga baal ma nag moo sax ma lay wax lii ma la koy dénk boo amatee doom boo bëggee du dee da koy tuddee Abdoul Aris tuddee Abdoul Aris doom ji du bëgg aadama bokkaale yàlla ndeysaan xam nga aadama du koy gëm mhm. ku dikk baalu si reconnaître faute bi ni la dama juum lii kat ko defoon te wax dëgg yàlla lii la daa daf ciy dellu aadama ne a mu ko waaw mu amaat doom tuddee ko Abdoul Aris doom ja Adama xam ni Iblis da koo naxaat. xamul kuy Aris. Aris boobu benn buuru jinne la boo xam ne ci nguuram la jant bi tàkk. Aris boobu moom la ñuy wax Oris. Oris Osiris Isis ay jaan lañu woon ay xeetu jinne la ñu woon yu doon dund ci beneen exoplanète boo xam ni naissance soleil bi. Mm-hmm. dafa fekk Aris ci nguuram. mais ab saay-saay la woon bu mag. ay mbokk lañ ci Iblis famille la ci Iblis Iblis ni ko boo amatee doom tuddee ko jaamu Aris. mi ngi mel ne mën la boo amee doom tuddee ko jaamu Iblis. c'est magnifique. mu am doom moom aadama tuddee ko Abdul Aris yàlla rey doom ja mu soog a xam ne Iblis da koo naxaat mu jégalu jiwaat yàlla yàlla nag ci la ko soog a commencé nag may doom yu laab may ko nag xaabil ak haabil xam nga xaabil ak haabil dañ lay wax ni la ñoom ñaar ay seex la ñu bari dañuy foog ni ñoom ñaar ñoo nekk seex mhm. maanaam xaabil ak haabil ñoom ñaar ñoo doo nekk ay seex ñoom ñaar خابيل سيخو بوبام لا سيخم جيجن لا هابيل سيخو بوبام لا سيخم جيجن لا خابيل سيخم ميغي تودو لايوسا هابيل سيخم ميغي تودو اقليما تي سو وادي حوا نون لا امي اي دوم دي ام اي دوم دي ام اي دوم با تي 40 تيمب مو نيو نيك بن بو غور دي سيسا سيسا موي تياتما موم لا سيدي حاجي مالك دي واخ تي خلاص موني C'est Hajimali, Malick man la la lay wax ci xilaas ci lu avant di ñew fekk na ñëlé mm-hmm. est-ce que gis nga wax ji mm-hmm. xam nga ans dafa 900 mm-hmm. ans donc yow y a dina am fukki se nga fekk la fi ngay

ya aadama dikk yàlla ni leen léegi da ngeen di jël haabil may ko layasa jël xaabil may ko aqlima maanaam ñu jël seexu haabil may ko seexu haabil jël seexu xaabil may ko haabil naka la ñuy wax loolu xaabil ni moom du accepté loolu seexam moo koy takk di nga dégg nag ñu lay wax lu ma metti la ñu lay wax naan waaw seexu haabil dafa ñaaw seexu xaabil seexu haabil dafa ñaaw moo tax seexu xaabil dafa rafet non non non non lu ma metti la wax lan moo expliquer ce refus mhm. Adama jurul ku ñaaw ñun ñëpp a rafet ba mel ni ay perle xam nga loolu problème bi mhm. mooy xaabil seexam boobu la takkoon guddeeg bëccëg ñooy ànd di kaf di ree di waxtaan dafa firoon di lekk di naan ñu mu xëy yu ba ko séparé ak moom loolu rek la jalousie est-ce que comprendre nga mhm. ki nga miin di ànd ak moom guddeeg bëccëg ngeen di toog di kaf di waxtaan di ree mu xëy benn bis ñu la dañ lay séparé ak moom jox ko keneen indi la yow keneen mu ne nag loolu la mënul accepté mu ne noonu loolu mu nankoor mu man sama xaabi sama seex laay àndal sama seex laay takk ñu ne ko non noo seexu kële ngay takk mhm. xaabil taxaw ni moom seexam lay takk aadama ni ko léegi ni ñuy def mooy kaa leen dem yàlla àtte ni leen yéen ñaar kenn ku nekk ci yéen na indi ci li mu am ci li muy liggéey benn parti xaabil dem indi takku dugub ndax da daan bay haabil dem indi menn xaaf ndax da daan yar ak jur sàmmkat la woon ñu jël takku dugub ba ak xaaf ma teg ko ci kaw benn montagne toog tuuti gis benn leer jóge ci asamaan ñëw rek ëmb xar mi jékki-jékki xar mi di jóg ànd ak leer gi di dem ba ni fes gisatuñ ko ñu ne kon nag li xaabil bëgg moom la yàlla àtt ni mooy dëgg aadama ne ni ko kon dañuy jël layoo sa may ko xaabil loolu nag la xaabil mer ni nag xaabil yow danaa la sàkkal pexe parce moom la jàpp ni moom mooy la coupable. Mm-hmm. coow la ca la commencé ba aadama ni muy demee màkk bi muy dem màkk mu dénk xaabil xaabil ni xaabil yow danaa la fexeel mu ne ko ah yow day sama doomu ndey bu la neexee nga yëkkati sa loxo jëme ko ci man waaye man de du ma yëkkati mukk sama loxo di ko jëme ci yow yow nag boo ma reyee di nga jël sama bàkkaar ak sa bàkkaar nga boole dem ak moom waaye booba xaabil seytaane ëpp na ko doole. Mm-hmm. naka la aadama dem màkk xaabil nag mais xamul nag nu ñuy rey nit parce que kenn musagul rey kenn benn crime amagul kenn deewagul bi mu demee ba mu yàgg muy xalaat na la mën a def Iblis gis ni nag c'est le moment. Iblis defar benn statut yëkkati benn xeer wu rëy fekk mu tëdd mu ñëw dóor ko ci bopp bopp bi tas. cay Iblis. xaabil ni wala nii lay def mu bàyyi ba xaabil di nelaw mu yëkkati benn xeer bu rëy ñëw ni ko ca bopp ba tasar. cay mu mu yenu néew ba di dem ak moom. xamul lu mu koy def xamul lu mu koy def xamaguñu suul. boobu bu nit aadama doomam yi dee da leen daan exposé fenn dañuy dem ba ci kaw benn xeer ñu teg ko fa. pourtant ba léegi Inde am na ñu ko fa doon def. ñoo xam ne bu ñu du ñu suul seen néew dañ koy teg ci kaw xeer yi tan yi ñëw lekk ko mais dafa demoon bisaag mu créé benn problème parce que dafa am ci nit. benn benn molécule boo xam ni. tan yi bu ñu koy lekk bu yàgg daf leen di rey. après tan yi di dee foofu di dee di dee ñu gis ni cadavre nit yi ñuy lekk moo tax tan yi di dee. ci lo gaay yi di ko jéem la diko arrêter mais ba légui mi doon am ño xamni bu sen nit déwé duñ ko sul dañ koy exposer ci kaw ay xeer booba non lañ daan def xamul nak mom numuy def haabib mu yenu ko fune mu jëm faak mom te ñooñu xamul gisu leen ndax ñooñu fekk na boobu juddoogu ba Iblis ñëw wan ko nonu ben picc bu ray benen morom ja mu gis mu xëcc ko gas ben pax ba mu xut xëcc picc bi duggal ko ci biir sul ko mu ne kon ni lay def dal dem gas ba mu xut duggal ci haabil dal di koy suul aadama jóge màkka ñëw gisul haabil mu dikk ni xaabil ana haabil mu ni ko xaw ma ci moom dara de mu ni ko xam nga ci moom dara kay fu mu nekk yow yaa ko def lu ko dal yow la xaabil ni ko man xaw ci moom dara aadama ni yàlla man de boo ma ordre boo ma joxoon doole danaa ci xaabil mi pexe yàlla ni ko jox suuf ndigal loo wax mu def ko yàlla ni aadama ne suuf wannal ma xaabil rek ñu gis su ak xaabil di pëtax ci biir suuf si suuf si di ko wann mel ni sable mouvement ba ci ndigg li ñu jekki-jekki rek dégg xaabil ni yow suuf ci barke bismillahi rahmaani rahim bul ma wann waay suuf si gëqaat ko kenn xamul fu xaabil jële bismillahi rahmaani rahim fu mu ko jëlee kenn xamul ko alaaji est-ce que aadama sax xamoon na bismillahi rahmaani rahim mu jekki-jekki rek ni suuf ci barke bismillahi rahmaani rahim bul ma wann waay suuf si génneewaat ko adam nak amul ci mom pexe non la khabil démé ànd ak njabotam dem boori Irak fa la sanc dëkk fa adam nak ci noonu la continuer di dund ci kaw souf ak njabotam gogou di am ay dom di am ay dom ba dem ba dundam sori ba mu nek mak ginaaw 900 ans fekk na bobu nak deewam jege ci na ndeysaan caat ma di sisa magna ponkal la ah kooku kay màggat na moom it. waaw nga kay ku ko sa bàyyi dund. waaw laay ndeysaan. Ah, waaye moom caat la. Mhm. kon donc moom mi ngi toll parce que siisa. Mhm. dañuy wax ni euh, mook Adama ñoo tolloo li ñu dund. dafa dund neuf cent ans Idriss dafa dund sept cent ans sept cent soixante dix sept ans. Mhm. boobu ñoom ñëpp ay plus de ay siècle lañu daan dund. xam naa li waraloon te daawuñu bejjaaw. Adama amul woon sikkim amul woon moustache. Adama musul am kawru sikkim. musul am karawu moustache kanam gi dafa set wicc mu am mâchoire yu yaatu am bët yu yaatu yu rëy loosoo gudd mu xaw a am ndomba baat karaw gi fin sew sëqrip wàcc ci tegu ci mbagg yi mbagg yi yaatu épaules yi yaatu noonu la ko yàlla bindee moom aadama noonu la nekkee ci Inde nag dëkk fa ba nekk mag ndeysaan am na benn bis moom aadama moo tax gis nga li waral bu nit jigéen bu julli jotee mu gis baax du julli te bu paasee du ko fay mhm. te bu dee koor la da koy fay lu tax lu parce que xawaa dafa gis mbaax ci julli aadama ni ko mu ni ko ah man de damaa gis mbaax nu may def mu ni ko xaaral ma laaj yàlla mhm. dem ni yàlla sama soxna si de dafa gis mbaax yàlla ni ko ah bu mu julli ba gis ba muy set mhm. ndaw si julliwul ba ba muy jeex aadama dikk ni ko yàlla kii bi dañ na de set na de ndax dafay fay munu ko garaawul bu mu fay baal naa ko koor gi jot ñu woor ñoom ñaar xawaa gis mbaax adama ni ko kon bul woor boo paree bu mu paree mënu ko kon bul fay yàlla ni ko na fay décision yàlla ak décision allah akbar dafa dafa dafa décider ci kaw yàlla ci kaw yàlla comme gis nga li bële wax na comme dafa demee logique quoi yàlla buggul ko jël place déedéet paaka la kenn bu ko jiitu si mbaram c'est magnifique mënu ko ku sant ni ko na fay wallaay bobu bu adama dikatun xeyna laaj niko ko ah waaw koor gi de jotna la ko dalon dal nako numuy nu muy def. wallaay mu wor bu woré ba jeex mu ne ah koor gi de jeex na léegi nak numuy def mu ne ko na am yàlla niko mayna ko bu mu fay. wallahi mais comme dafa jitu dal niko bu fay yàlla niko nak na fay. ken du décider à la place du roi. dedet ken du paaka la kenn du ko décider. ken du ko jitu ci mbaram. moo tax mu ne dama fay kon. wallaay comme da nga yay décider sa bop yay yakane ne yow yay yaay yaay diine ji yaa koy tëral. na fay c'est super c'est super ku jur doom ku jur doom deewoo mm-hmm. adama am na njaboot ak awa jur mm-hmm. nañu ay doom mm-hmm. am nañu ku ko ci donn wala ñu ko ci donn alors dafa mel ni aadama buural nañ ko euh, vingt cinq yonent la woon ñoo xam ne alxuraan indi na leen lu baree baree bare bari kan nga ñu ci yëndil dimanche insha allahu rabbi waaw xam naa ni après inshallah allah dañu ñëw ci Idriss. Euh, nekkul dañuy toftalé comme ni Seydi Hadji Malik toftalé Adam Adam. waaw Idriss. waaw Noé. Ah. Uh-huh. waaw Salih. Ibrahim, mm-hmm. Lot. Mm-hmm. Ismaïla. Mm-hmm. Ishaq. Zaqub. mom lañuy wax Yaqoub effectivement Youssouf Ayub. Shuaib Harun Moussa. Ali Alias, Sulkifi Daoud Souleymane. <coughs> bop mom moom Alaaji Souleymane mom Mhm. man maa la ciy solo mbubb ma que c'est c'est une histoire qui me plaît mhm. particulièrement mhm. Ilias Yunus Zakaria Yaxya moom lañuy ñuy wax Jean Baptiste wallaay ndeysaan <laughs> waaw Isa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la moom waaw xam nga Seydi Hadji daf ko indi ci beneen rim bi Adama Idris wa Xoodin wa Yunusin wa Lootin wa Nooxin suma awelin li xulati xam nga lan moo tax néewul Ibrahim rek tuddee ko rek su ma awee dindu xarit ak soppa ga mhm. dafa nekk benn genre intermédiaire mhm. safaar daf ci biir ñaan gi muy ñaan mhm. bu tuddee Ibrahim wala mu woowee ko ak soppeb yàlla ba dafa am impact ci ñaan gi muy def mu jël turam bële mu nga xam ne mooy soppeeb xaritub yàlla bi xaritub yàlla bi parce que moom instant boobu dafay ñaan bëgg xaritoog yàlla moom Seydi Hadji Malick moo tax utiliser wul turu Ibrahim mais mu utiliser turam bi nga xamni yàlla da ko ciy déggé ak xarit yàlla ba nga xamni lu mu do ñaan yàlla yàlla defal ko ko mom Ibrahim bu ko defé mom limi ñaan day tax yàlla defal ko ko mom Seydi Hadji Malick dafa yew bi aadama idris wa hudin wa yunus wa lutin wa nuhin su maawilin lu xolati mu tax nag wa daawuda yaqub sulayman yusufin wa ishaq ismaila ilyas junnati wa musa wa harun وحيبا وليحس وذل كيف ليحيى ثم إيسى الوسيلة كذا زكريا عن شعيب وسالح تقتنا رد دارين من كل وقت أحمد سيدي حاج مالك كان قبول كان قبول وآدم ميجي تشاب لو سيسا موم سيسا مو جور كوني وخ أنس أنس مو جور خينان خينان مو جور محلائل محلائل مو جور برد برد موجور ادريس يونتي ادريس ادريس موجور مستخلخ مستخلخ موجور غور غي ني واخ لاميك لاميك موجور يونتي الله نوح نوح kon bu ñu ñëwee incha allahu dina ñëw ci Idris. Idris bu ci xa bu bu ci xajul ñu eggale ko bu ca xajee ñu jeexal ko tàmbali nuux ndax ne nañ cinq minutes moo ci des nuux. Mhm. bi mu dikkee am na ñaari soxna. Mhm. am na ñetti doom juróom-benni doom ak kii am ak kële ñaari doom. Mhm. ñi ko may soxna suñuy wax waaxidatu mu am moom ñetti doom yu góor ku ñuy wax Cham ak Ham ak Yaafas. tek ci ñett ñu digeen aswata sarata ak bakhyorata ñu way ko ben jigéen bu ñu wax walxa bintu ajwil mo am ak mom ñaari doom yu góor muy balos ak kanaan mais nuh mi fa fek bur bu ñu wax darmasil darmasil ku ñu wax jijit moko jur jijit ku ñu wax tawbil moko jur tawbil khabil moy mamam darmasil mo jur ku ñu wax fawmil fawmil mo jur ku ñu wax takhardos takhardos ci nguuram la tufan nuh am cey allah ji ku la wax lii yeb

ah man de Alaaji je suis voilà je suis je suis séduit <laughs> waaw par euh, autant de charme ni ngay waxé affaire yi day neex sax bokoy koy xam nga Seydi Hadji Malick nag ndeysaan dafa mëna way woy mhm. kenn xamul lu mu doon mhm. Alaaji Seydi Hadji Malick mooy kan loolu de mooy laaj bu mag biñu wara li jënd lijjanti dama ne la kuy ku ku nekk Tiwaawan mhm. mille neuf les années 1900 neuf di la jàngal Aristote <laughs> Ah, xanaa kon beaucoup suñu mbokku téléspectateur auditeur internaute Asfiyahi radio télévision li lañ leen indiloon ci Mam Adama j'espère que son histoire vous a plu Moi, particulièrement elle m'a plu ma jox leen rendez-vous incha rabbi dimanche prochain ci Idriss ma bàyyi nag sama waa ji mu tàggu leen ak émission bu neex bi l'état am importance yàlla ñu fi yàlla dajale waat dimanche. amin incha allahu ñu ngi lay nuyu xalbal di bëgg ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tawféex ñu ko sàkku ci ñëpp incha allahu di ñaanal yàlla yàlla yàlla def ci réew mi jàmm def ci Sénégal jàmm def ci sunu xol yi ngëm def ci sunu xol yi mbaax def ci sunu xol yi ubbeeku ubbi sunu dënn yi mu yaatu ba ñu àttan xajo yi nga xamante ni si mooy xew ci jamono. bu ko defé ñi ngi nuyu ñëpp di leen jox rendez-vous inshallah mardi ci firi gént bi aussi bu ñu ko fàtte salaamun ala fasin fa fiha ahibati wa fiha muna qalbi wa aqsama xaaribi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim